Mustafa la ilaha illallah rabal sëriñ Seex Jëmbu Faal yàlla daal boo nu sore la la ilaha illallah rabal sëriñ Seex Jëmbu Faal yàlla daal boo nu sore salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi jiital ci nuyu bi sëñ xalifa général sëñ Mountakha di ci toftal suñu xalifa bu màgg bii di sëñ Modou Mbenda ndax Baye Fall moom ñun ndigal rek la am maa ngi sant bokki taalibe yëpp lii mbégte laa ci àndal ndax man euh, lu ne ñu ngi koy wax waaye man li nga xam ne moom laa wax doon ko wax naka jekk sama kàddu démb doon sama kàddu tey bu ñuy taj nañu jëkk ci man bu ñu ñëwee lu ñu fekk ma roñ ko ci samay bagaas ñu xam ne roñ naa ko lu ma ci roñut lépp def naa ko addee Sëñ Tuuba man noonu laa doxee ndax Seex Fall Naar moom fu ko dégg xam nga ko ndax man taalibe Baay Fall laa yaakaar naa ndigal lu mu lu man maa ci war a jiitu ci ndigalal Baay Fall kon lii mbégte laa ko def maa ngi sant yàlla di sant maam Seera Fall boo gisee itam mën nañu koy wax ci Seex man ndigal rek moo ma ñor dem naa ci dem naa ci kilifa yi dem naa ci Serigne Bass Abdou ndax euh, li ci li ci sëñ euh, sëñ Mountakha wax ci suñ sang suñ sang yu baax yooyu jàlloon ba ci sëñ Mountakha li mu ci wax mooy mooy samay mooy samay nopp mooy samay bët ban ndigal li jógee ñu dem euh, waa marché bi mobilisé daan ne Cheikh Fall Nar daanaka marché bépp moom moo ci ëppale comme que moo nag nañ ko jiital ndax buñ ko jiitalu buñ demee di wax ñun mën nañ ñoo bañ a déglu ndax liñ fi yor daanaka du dara ñu wax ma ko man leen man du ma dem ndax man ndigal lay wéyee te ku ma xam-xam ma ci ndigal ku nag ku ma xamit xam ne man du ma gàntu ndigal léegi nag man du ma dem ñu ne ma il faut nga dem ndax yow euh, marché gaar bi yow yaa ci ëpp te yow yaay suñu ndër laay yaay suñu njiit yaay yaay yaay suñu jëwriñ ci ci liggéey bi ndax ñun ay liggéeykat lañ comme yow da ngay liggéey di joxe addiya ñuy liggéey di joxe leen man de bu ma sañal du ma dem ñu ne mën ba ma demee ci sëñ Bas fekk naa fa ay ay nit ay mbooloo ay mbooloo yi euh, sang ñu toog ba ñu toogee ba ma ñëwee nuyoog sëñ Bas nekkuma fa di ko wax lenn dama ko ne sëriñ bi mu ne ah ma ne ko man de damaa rusoon sax ñëw fii ak si ci yow ndax yàgg naa laa dégg waaye yaakaar naa yàgg naa laa xam ngay ngay sunub sang waaye yaakaar naa ne sa kër gi li ma fi teg sa tànk bëri te heure bu ndigal jóge sa taalibe yi nga am yëpp seen xel day dem ci Cheikh naa ñu ñëw ma di leen jox ay bagages yoo xam sa ndigal te ñëw ma fi de a wax ne la man maay Cheikh Fall Nar ndax man damaa damay taalibi damaa war a liggéeyal sëñ Tuubaa waaye nag ñii dañuy sooy bokk taalibi te ndigal nag daa jógee foo xam ni a ah, ñoom dañ ma cee yaakaar ma ànd ak yow ndax gis nañ ni man la ma fa am ñoom man ma man maa leen jëppale te buñ jógee di dox te man jóguma day mel ne ñoom maanaam euh, dama dañ ma fi bàyyi wala dara wala ñoom la ñuy dox di sotti ma ne ko bu ma sañoon sama tànk yi du ma ko fi teg ndax man bir na ma ni ndigalal sëñ Touba Seera Fall mooy ndigalal sëñ Touba ndigalal maam Seera Fall mooy ndigalal sëñ Touba te Serigne Touba euh, euh, Serigne Touba maam Seera Fall du ko jox benn liggéey la mu ko digal mu di ca mu di ca arrière dara wala mu di ca yokk dara mbaa mu di ca wàññi dara te man bu ma sañoon de mu ne ah, ma ne ko sama lool ci la ñuy jëkkee tàmbali la ma fa am nag toll na ci quatre cent millions ndax deux cent millions laa ko waxoon ndax booba dafa amoon yenn yoo xam ne sax jotoon naa ni ñoom duñ ca àgg waaye nag booba itam taxul ma ma ma jortu ni sax yooyu danañ ci àgg waaye jortoon naa ni sax danañ ci àgg ndax nee naa leen mbir mi moom dafa tàmbali te Seera Fall dong moo xam fa mu yem te ndigal la loo xam ne fañ ko digal fa mu yem ak fa mu tàmbalee du ci yokk meetar du ci wàññi meetar man loolu xam naa ko xam naa Baye Fall léegi nag man li nga xam ne moo ci sama sama xalaat mooy damay jégalu ñëw bi ñëw bii mu naa ma ne ko dama koy jégalu li may wax sëñ Bass dana ma dégg wallaahi azim lii aw ma ci lu may naqari bi ma ñëwee it bagage yi nga xam ne moom laa fi am woo naa sëñ Modou Fall Fall ba woo naa Mëgëy Ñang mi nga xam ne dama koo xamoon ci Serigne Cheikh Jëmb muy jawrin ma woo ko ni ko man de ndigal li rafetlu naa ko waaye nag dama am bagage yoo xam ne dafa bari maa ngi roñ nag ay camion di yóbbu waaye xam naa ni lépp du fi jeex ndax matériel yi am na pour yoo xam ne am na étage yoo xam ne dafa fa monté ay pour ay nit ñu bari di ca liggéey sama hôtel sama place bi ay nit ñu bari dañ ciy liggéey waaye matériel bi bari na bari waaye goo xam ne jéggi na dayoo bu ma sañoon nag man du ma àgg ci sëñ Modou Fallou Fall sax di ko wax dara waaye nag nga nga jotal ko loolu ne ko nag man lépp Seera Fall rek laa ko def maanaam lépp mbégte laa ko def ndax man Baye Fall laa waaye bagage yooyu bu sama sago du ngeen fa fekk dara loo xam ne luy xeetoog loo xam ne da leen di gàllankoor ndax man baay Fall laa te bëgguma ngeen dégg dara ci sama place bi wala sama kër yi ñu ne damaa nekk ab taalibe tax ngeen dégg loola wala ngeen bako fa jërëjëf léegi nag jotal ma ko lu la ci wax lu la ci wax man loola doy na ma ba ma ko ko jotaleet booba laa ko gëj a woo booba laa ko gëj a ndax moom it xam naa ni la ma am kerso sax dem jàkkaarloog sëñ sëñ Modou Fall Fall wax ko ko euh, sëñ Moussa Wa Mbar wax ko ko moom xañ na moom it la ma dal foofu moo ko dal tey ñun ñëpp ay ndigal lañ dama ko ne woon loolo soo ko jotee lu mu lu mu ca wax rek lu mu ca digle rek noonu la waaye man daal lii sama gàcca maanaam mooy mu ñëw fekk fa ay bagages yoo xam ne daf da leen di baare ñu ni lii bagage Cheikh Fall Nar la camion bi di ko touché wala muy touché dara loo xam ni xañ na samay samay matériel la ñenn ñi di ko gisee ni man daf maa naqari lii lu ma am mbégte laa maa ngi nii damaa takk sama der takk sama laxasaay ànd ci liggéey bi maa ngi nii sama kër sama bagage yi ñu ñu ñu ñu ñuy jëkkee loolu damaa neex ndax ba ñu wootee tey sama étage bi ma bi ma mujj a tabax ca laa leen digal li kenn du ma ci jur xaaral ma jëkk ci ba ñu gis ni maa jëkk a tàmbali sama kër ña nga fa ak sama yeneen bagage yëpp waaye gisuñu ma fa may toppale mat la wala may toppale euh, ànd mbaa may toppale palaat wala may toppale weñ ndax ndigal li sëñ Touba moo ma moo ma ko ëppal doole lépp sëñ Muntaxa ndigalul sëñ Muntaxa li moo ma gënal lépp moo ma gënal saa bakkan bi barke maam Seera Fall rawatina bi mu ko joxee Baye Fall yi teg ko ci seen loxo kon man ndigal loolu rek man moom laay wéyee tey ak ëllëg sama jëmm ji bu ko laajoon Baye Fall yi giñ naa ci suñu borom dama leen di wax jëkka leen ci man tër ma waaw leen ci man tër ma ndax man adduna bépp xam nañ ma Italie France ba bitim réew foo taxaw boo joxee ñaari jóge boo ne Seera Fall naan ñu xam nañ ma te man loolu lu ma fi sëñ bi séddale kon lii dama cee def mbégte ndax buñ fi tojoon jéeg fi sama étage étage yi mën nañ ni sëñ bi dafa dafa dafa dafa ségrégation wala dafa am lu mu dox te moo ñoom dañ leen a digal lañ leen digal loola duñ ko romb duñ ko weesu amuñu ci nag ma samba amuñu ci ma demba dama ni leen woon bu ci ndigal li sax jëkk leen ci man ba xam ni lii man maa ko war a jiite wallaahi al azim barke maam Seera Fall ndax man taaliba borom digal la te taaliba borom digal ku ko doon ku ne da nga da nga doon ci moom dara ndax ndigal ndigal la ca nekk ndigal loolu moo law ba si ci taalibeem yëpp te noona laay doxee lii nag bu ko naqarlu baalu ma la ko li ma bëgg ñëpp am ci mbégte barke maam Seera Faal te lii ñu def ko ak yokku def ko loo xam ne mooy li gën ci nun tey ak ëllëg muy ndigal loo xam ne ndam la ci suñu Baay Faal gi yëpp barke maam Seera Faal maa ngi sant jëwriñ ji di sant sëñ am di mi nga xam ne moom it jàmbaar la ci yoon wi trop di jëwriñ di sant jëwriñ yëpp li ko tàmbalee ci sab sëriñ ba ñëpp rek ñëpp maa ngi leen di sant ba ci ñëpp rek ba ci euh, Baay Faal yi nga xam ni dañoo jëfe ndigal ànd ak ñoom wallaahi asim ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla li ñu sàkk ci liggéey bi yàlla na leen ko seera faal defal ci kattanu borom bi tabaaraka wa taala